day wax nag tegg yi ni jàngal xuraan ba ci jëkk mooy fexeel ba sa yaram set bañ a taq sobe sa yére noonu béréb ba nga xam ne fa ngay toog di jàngal xuraan ba tey noonu nga boole ci booy jàng nag def teg ànd akuk dal tey seetantal maxnaa mi niñ ko waxe woon léegi li ci gën tam mooy bala ngaa tàmbalee jàng alxuraan nga soccu ba sa gimiñ set bañ amee xet gu naqari sopp nañu booy jàng alxuraan nga jublu xibla ànd ak mokk fi kanam sa boroom xam ne ngay sëgal sa bopp ànd ak wegu ànd ak yaru waaye nag sa kàddu ci boppam moom dañoo bëgg mu dijj bu baax a baax nga jàng ni nga xam ne moom la góor yàlla yi jànge mooy dijjal sa kàddu kàddu gi dëgër bu baax a baax te bañ a mel ni kàddu jigéen nekk kàddu gu xaw a woyof ba tey na moytoo neexantal neexantal gu ëpp ndax dañoo wax ne neexantal yaar la bu fekkee dafa neexantal ba di ci yokk lu ci bokkut baa di ja wàññi lu ca bokk moom day araam bi ci des nag mooy muy jàng di neexantal njàng ma waaye nag taxul mu yokk ca dara mbaa mu wàññ ca dara loolu moom ñu bare bari dañoo dogu ci ne lu ñu sopp la di ca tudd addis ba wax ne laysa minna man lam yataxanna bil quraan ak addis ba wax ne zayyinu al quraana bi aswaatikum addis bu njëkk bi boo dee xool ci aljaamihu saxiir dafa wax ne saxiix la axrajahu al buxaariyu xan abi hurayrata addisu ñaareel bi boo dee xoolaat ba tey ci aljaamihu saxiir day wax ne saxiixun axrajahu ahmad fi musnadihi wa abu daawuda wa nasaa'i wa bnu maaja wa bnu muy wey xawees naa mën a jàpp ne daal su ma nee neexantal na muy jànge alquran te du ci yokk dara du ca wàññi dara mooy gën ndax sukkandikoo ñaari addis ñooñu bokk na ci teggin jàng alquran na fexe ba jàng mi jàng yàlla rek tax mu jàng rek ngir ñu ne ku neex baat la wala ku mokkal la wala ku fonk alquran la wala bëgg ñu jox ko alal déedéet day jàng alquran rek ngir yàlla dañuy wax sax ci téere fiq yi ne taxaw ci bunt yi di jàng alxuraan mbaa ci yoon yi ndax bëgg ku la jox alali àdduna lu araam la te it ku mel noonu kenn du ko sañ a jox dara ci alal ndax day mel ne kon danga koy dimbale ci lu araam rawante na nag moom mooy jàng alxuraan ja ngir rekk bëgg ko jox alali àdduna fa mu taxaw di ko jàng day béréb bu sobe ñu ne loolu sax day daal di xaw a doon ak weddi ak kéefër booy xool ci sara aqrabul masalik day wax naa wa amma qiraatul qur'ani xalal abwaabi wa fi turuqi qasdan li talabi dunia fa xaraamun wala yajuusu al intaau li faaxili dalika lima fihi min al ihanati xalal muharram wala siyama fi mawaadihi al aqdaar fakaadat an takuna kufran war rida biha min ulil amri dalalum mubin ne booy jàngal quraan na nga fexe ba loo mën a amee ci yar ak teggin rek nga amee ko nga teewlu ci sa xel ne dangaa toog di déyaaleeg sa boroom bi nga xam ne li ngay jàng ay waxam la moo ko wàcce ci kim gën a fonk ci mbindeef yi da ngay jàngal xuraan ji ànd ak yaru ànd ak sàmm teggin ba mel ne yaa ngi jàkkaarloog sa borom te it mu wër la ne kat bu fekkee sa borom nekkoo di ko gis tam moom mi ngi lay gis kon nag war nga koo bàyyi xel ne moom mi ngi lay gis jëmm joo xam ne moom mi ngi lay gis te gisoo ko waaye wóor la ne moom mi ngi lay gis moom war nga koo bàyyi xel bu baax a baax kon nag booy jàngal xuraan foo tool da ngay bàyyi xel ci ne yàlla sa boroom mi ngi lay gis ndax moom bu fekkee ne gisoo ko it moom daal mi ngi lay gis moom jàngal xuraan moom nee na amul wenn waxtu woo xam ne dañ ko caa sib waxtu yépp rek mees na caa jàng alxuraan neena ñu bëgg wax ne gannaaw takkusaan daal di su jàng alquran seen wax jooju mëtt déglu ndax dañ ko layal ci ne waxtu woowu la yëxoo di jàng te kon booy jàng ci waxtu woowu da ngay bokk ak ñoom waxtu loolu nag nee na xiyaas bu yàqu la ndax soo bëgg su fekkee da ngay seet rek yëpp waxtu woo xam nee nañ yëxoo dajey jaamu mbaa nasaraan nga bëgg a juyoo moom tax nga bàyyi ko ah loolu kon nga dal di bàyyi jaamu yàlla yu bare bare di gën ci jàng alquran mooy ngay julli guddi di jàng alquran te itam guddi ga lu mu gën a sori jëm ci fajar rek lay gën a baax ndax lu mu gën a jëm ci waxtu woowu nelaw gën a neex càggante gën a bare kon waxtu woo ku ciy julli di jàng alquran lu rëy rëy lay doon ba tey diggante timis ak gee taamu nañ lool ku ci jàng alquran gannaaw boo jullee suba itam noonu sopp nañ lool ku ci jàng alquran bisu altine taamu nañ lool jàng ci alquran bisu arafa noonu bisu ajjuma noonu bisu alxames noonu liñ gën a taamu mooy booy jàng alquran nga di ko xool te bañ koo tari tari gi baax na waaye nag di ko jàng di ko xool moo ëpp tuyaaba daañu wax lu tax képp koo xam ne mi ngi jàng alquran di ko xool ci kaamil na ko wóor ne bu fekkoon ne ñaari waajuram ñu nga leen di mbugal ci bàmmeel itam faaw rek yàlla dana woyofal seen mbugal ndax jàngoogee muy jàng alquran te di ko xool ci kaamil ba dana kuy jàng alquran te di ko xool faaw rek yàlla may la nga amee ab gis bu neex maanaam yàlla mën na laa may say bët du lëndëm du naqari rawante na gumba yépp yàlla mën na la cee musal te itam moom mi jàngal xuraan te di ko xool yaari waa juróom yi nekk ca bàmmeel bañ leen dee mbugal itam faaw rek yàlla woyefal mbugal ga doon sax ñaari waajur ya duñu di ay jullit dañu di yéefarit faaw rek seen doom jàngal xuraan te di ko xool dana tax yàlla woyefal seen mbugal am na fukk ak ñaar ci saaba yi ñu maase ci ne jàngal xuraan te di ko xool moo gën jàng lu bare bare ci alxuraan te xooloo ko moo gën sax yeneen jëf yu bare bare mu ne ñenn ñi nee nañu boo gisee ñu wax ne jàng di ko xool moo ëpp tuyaaba moo gën mooy rekk bu fekkee da ngaa yor téere bi di jàng say bët mi ngi xool sa xol mi ngi setantal sa loxo mi ngi wëlbati kayit yi ak di ko téye mën naa am itam nga teg ko ci sa penk déeb kaamil loolu lépp nag boo ko booleeg xëy na boo dee xool ngay gën mën a seetantal maxnaa yi ñoom neen looloo tax ñu wax ne jàng di ko xool moo gën tari ga boo doon tari moom day mel ni làmmiñu doom muy jël wàllam waaye nag bu fekkee da ngay jàng di xool moom bët yeeg loxo yeeg boo tegee téere ba ci sa penk yépp dañ ciy am wàll te xëy na ci ngay gën a mën a seetantale maxnaa yi bi ngay jàkkaarloog baat yi loolu moo dellu ci xol bi ñoom kat nee nañu seetantal gi moom moo ci ëpp solo bu fekkee ne bu ko doon tari lay gën a mën a seetantal kon muy jàng di tari mooy gën xool ca kaamil ba bu fekkee ñoo yemoo képp moom xool ci kaamil bi gën nga xam ne ni muy seetantale moom ci xool gi ak ci ñàkk gi xool ñoo yemoo ci moom dong mbaa bu dee xool lay gën a mën a seetantal waaye bu fekkee ne bu dee tari lay gën a mën a seetantal kon tari ga day daal ëpp doole jàng ga di xool ca kaamil ba mu ne nee nañu sib nañ. nga xëy ba jant bi so te say bët teguwut ci kaamil xëy ba jant bi so te xoolub kaamil daal loolu nit ñu baax ñi taamuñ ko ndax nee nañu jekki-jekki ne jàkk ab kaamil xool ko kese xoolu kese gi rek ak jaamu yàlla la moo tax nag kon xëy ba jant bi so te xoolub kaamil daal moom sib nañ ko dañoo wutee ci booy jàngal xuraan nga di ko jàng-njàngum diibal ko teylu ko bu baax a baax rabat rek noonu wéy bañ koo diibal yooyu yaar lan moo ci gën dañ cee wuute ñu wax ne booy jàngal xuraan diibal ko moo gën dañoo sukkandikoo li yàlla ne wa rattilil quraana tartilan di ko jàng di ko teelu di ko diibal bañ koo gaawantoo moo gën mu ne suñu borom bam ne yaa ayuha alladina amanu dukrullaha zikran kathira wa sabbixuhu bukratan wa asila digle gi mu digle tudd yàlla gu bari moo wane ne kon booy jàngal xuraan da nga koy rabat mu gaaw ndax li ngay tudd yàlla bari ndax boo ko diibalee du baree ne boo ko doon gaawal moo tax ñoom ñu leeral lanu waxoon ne dañoo wute ci booy jàng alquran di ko diibal muy yeex ak di ko rabat muy gaaw lu ca gën ndax day mel ne lanu aaye woon ci jàngal xuraan di ko gaawal kon teewul am nañu ko taamu li ma ta leeral foofu nag mooy bu ñu nee gaawal ko rabat ko am nañu ko gënal itam gaawal ga ak rabat ga du tee rekk araf wu ne ñëw nam mu war a ñëwee dara bañ caa des kon jàngi ni alquran yi dafa nekk ñett bu njëkk bi moo tudd at taxqiqu at taxqiq nee nañu moom la yonent bi daan jànge mooy nga diibal ko yéexal ko di ko teeylu di ko jàng araf ci gannaaw araf araf yépp teqalikoo ci ni ngay jànge bi ci topp mooy alhadru alxadru moo di ak gaawal bi ci mujj ak tawasutu moo di ak diggu doomu kon jànginu alxuraan ñett la yeexal ko ak gaawal ko ak diggu doomu bañ a gaawal bañ a yeexal dañoo wute nag ci yeexal ko ak gaawal ko lan moo ci gën waaye boo déggee gaawal ga rekk mooy loo ko gaawal gaawal du te araf wu ne nga jox ko àqam indi ko ba mu mat sëkk ñi wax ne gaawal ga moo gën dañu ne suñ borom moo digle ñu koy tudd moom yàlla tudd gu bare bare te alxuraan moo féete kaw ci mboolem xeeti tudd yàlla yi te kon nag soo ko dee gaawal la ngay jàng di daal di gën a bari nga gën a bari tuyaaba ndax li yonante bi waxoon ne ku jàng wenn araf ci alxuraan ñu bindal la ci aw yiw te ni suñu borom waxe yiw wu ne da koy ful ba muy fukk te it mu ne duñu ne alif laam miim benn araf la dañuy wax ni alif araf la laam araf la miim araf la man qaraa xarfan min kitaabillahi taala fa lahu xasana walxasanatu bi xashri amtaaliha laa aqulu alif laam miim xarf walakin alifun xarf wa laamun xarf wa miimun xarf loolu kon boo ko déggee day mel ne boo dee jàng ngay gaawal njàng ma moo gën waaye nag li tax nu leeral loolu rek mooy booy gaawal itam na araf yépp ñëw arafu ne nga jox ko àqam nga bañ a wax ne rek am na ñu gënal gaawal gi daal di tàmbalee rabat rabat muy wéy bay bàyyi yenn araf yi yenn sàdda yi loolu kenn sañu ko ña wax ne nag diibal ga yéexal ga moo gën dañu ne yéexal googu ak diibal gi moo doon jàng yéenu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax bañ ko laajee ummu salamata ca na mu tontoo wane na ne noonu la daan jànge moom yonante bi ñoom ñi wax ne diibal gi moo gën ndax noonu la yonante bi daan jànge dañ caa dolli ne boo koy diibal noonu itam ngay gën a mën a seetantal gën a mën a dégg maanaa yi boo ko dee gaawal moom doo ko mën a seetantale noona kon nag ñoom diibal gi moom lañu gën a taamu ak lu mën a am daal moom kuy jàngal quraan lu mu ko gaawal gaawal na fexe ba bañ a bàyyi wenn araf bañ a bàyyi genn maska bañ a bàyyi genn sàdda lépp lépp ñëw mu ni waaye daal res naa jàpp ni la ëpp solo moom ci jàngal xuraan mooy rek bu fekkee boo seetantaree man caa doole ku dégg rek ngay jéem a settantal di yéem a yokku ak dégg ci li ngay jàng loolu daal lañ jàpp ne moom moo ëpp solo ci njàngum alquran te loolu mooy sunna yonante bi li yàlla wàcc ci mu alquran yépp ak lim koy dégg-dégg yépp da ko daan taylu di ko settantal di ñaan yàlla dolli ko ca ak dégg ak xam